ñaari fan ci weeru juin ba léegi lii di liaison maritime Dakar Ziguinchor dawatul mu indi ab njàqare ci askanu Ziguinchor rawatina yile jaaykat. waaw suma marchandise bi day jógee Casamance dima fi fekk léegi waa ci ñi ñi tegal ñi tegal ma ko ci oto. oto bi léeg-léeg mu wàccee ñu boo maraîcher léeg-léeg mu wàccee ñu fii yoo gis nga suñu nu ñuy jaf léegi après nga fayaat taxi mu dem. lekkatuñu naanatuñu ndax boo yoree benn saaku bi nga fay ko te lii fi ñu koy jëlee sax du biir Ziguinchor lañ ko jëlee du junne lañ koy jëlee. boo ko jëlee jinne jënd ko jinne nga fay foore jinne ba pare nga ñëw ba suñu frontière nga fay nga dédouané ko. door a dugg si Ziguinchor fay ko foore door koo yeb ci oto yi. liggéey baaxatul dañu dañu mënul a toog rek waaye suñu liggéey baaxatul. ñuy xam le nii ay jafe-jafe yu metti la leen indil ba fi ñuy wax ak yéen xamuñu lu tax ñu daal di arrêté yooyu la ñetti bato yu doon daw. nag ñun xamuñu lu tax état téye bato bi ba léegi ndax bato bi du caagaan xëy na dafa yàqu ñi xam ne dafa yàqu mais jékki-jékki ñetti bato mu ñi arrêté ndoor yëpp ñetti bato yi. loolu jaaxal na ñun ñun baana baana yi. ñoom li ñuy def ni baaxul parce lii du yoon ndax état bi dafa war a xam ne ne doomi doomi Casamance ñoom kii bato bi moo leen arrangé léegi moom bu ko téye ñu ñuy def. ci loolee ñuy sàkku ci nguur gi ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi ngir mu delloo si leen seeni bato. leen di wax ne ñu jàpp nañ ci jàpp wàccee suñu bato bi wàccee bato bi. parce que waruñu ko waruñu koo téye noonu bato bi nekk noonu ñit ñi di sonn seen bagage yi di nekk ci oto bala muy ñëw ay deux heures mbaa mu ñëw guddi c'est pas du normal ndax bato bi lu war a lu ñu war a marchandise yaa ngi nii xoolal li ngay am di sacs moom ngay am moom ngay jëlee léegi da ngay wàññi di am ay deux sacs ay ay trois sacs juróomi weer a ngi nii ñetti bateau yi doon daw diggante dakaar ak Ziguinchor daal di taxaw ka waraloon moo di mbiru kaaraange waaye fi mu nekk nii jàkkare ak tiis moo fës ci kanam moo les commerçantes nga xamante ni ci boobile bato la ñu doon sukkandiku ngir mën a liggéey.